Lassin. Bienvenue au restaurant fast-food pâtisserie Lassin. mbokk yi yéen ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokko taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais u jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko jox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi lee 78 132 97 97 78 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer Amen Malick Ndiaye ma ñu woolu démbu ca yoon ak docteur Babacar Niang moomu fekk ca yoon l'observateur mi ngi ñuy baaxee yenn ci yi ñu wax enquêteurs yi bil kay bi kenn ki di El Malick Ndiaye secrétaire à la communication bu parti Pastef ca loxoy alkaati yu sûreté urbaine yi yéene kay bi nee na ñoo fanaan démb dañu ko garde à vue wax lu dul dëgg di diffusion fausse nouvelle loolee la koy tuumal moom El Malick l'observateur nee ñu wax yow keneen ki ci des di docteur Babacar Niang l'observateur mi ngi ñuy wax ne na ci kanamu enquêteurs yi mbooleem li ko njabootu ndem si yàlla Doudou Fall ak meeru Medina di Bamba Fall doon tuumal ci mu faatu docteur Babacar Niang nee na enquêteurs yi loolee amul li am mooy Mamadou ñu ko indee dañu ko defal scanner bi résultat ñu wax mbokk yi la nekk ci scanner ba ci la mbokk yi ko yóbbu ko hôpital principal li famille bu Doudou Fall di tuumal waa suma assistance l'observateur ne nañu lépp la docteur Babacar Niang weddi ci kanamu enquêteurs yi libération nañu docteur ñang bu suma ma nga ñu garde à vue ci plainte gi ko mbokki ndem si yàlla duudu faal yi ci loolee ci lañ ko doon auditionné démb tey jiit war nañ ko auditionné ci condition hospitalisation yu Ousmane Sonko ma fa entré woon libération mi ñu ko wax mi ngi ñuy waxit ne maire bu Kër Massar Sud di Bilal Diatta jàpp nañu ko attentat à la sûreté de l'État mooy li ñu koy tuumal juge bu troisième cabinet bu tribunalum Dakar yéenekaay contrôle judiciaire ca la nekk ñaari téeméeri manifestant ak ñeen fukk ak juróom ñaari ñu tegoon loxo ci Ndakaaru ci diggante fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars ñoom ñëpp Source mi ngi ñuy xamal ci xët njëkk ne mandat dépôt nañu leen docteur Babacar Niang mi ñu garde à vue Source A nañu ay natangoy médecin bi ñu ko bëggee gis démb waaye mënuñu ko gis ordre des médecins du Sénégal yéenekaay bi nee nañu dugal nañu ci ay sars yu garaaw garaaw la ñu koy toppe tuumay nit ko soxla ak taxawu ci wàllu paj nga sàggane ko moom la koy toppe borom clinique suma assistance di docteur ñang lise koo xam ne da ngaa jëlee gaañu gaañu ci mi tollu tollu tey ji ci juróom-benn fukki atam ak juróom-benn anki dina feelu ko ci teelkeel mi ngi ñuy gën xamale ak borom suma assistance bàkk bi mu ko xëy jox moo di le docteur des contestataires ci rapport bi waa cour des ci xaalisu fond force covid 19 bi anki dina nee nañu ci la ko ñu bëri ràññee moom docteur Babacar Niang le quotidien bind ne ginnaaw manifesté yi fi amoon fukki fan ak juróom-benn ci yoru mars gars yi ñoo ngi wéyal seenub défilé waa Pastef pexe yooyee la ñuy doxal ñu dox dem ci vox populi mi xëy am moom it gis-gis bu ne daanaka li mu gis moo di rëbb gi ñuy rëbb waa kër Ousmane Sonko yi di leen jàpp ko téyee yoon yëf yi gën di yaatu saa yu ne loolee lépp kenn def ko ku dul Macky Sall Macky Sall mooy traqué waa kër Ousmane Sonko woon dara dalu ko woon moo waral journal tribune xëy di laaj ci xëtamu njëkk baadu Ousmane Sonko dafa demoon tëddi ca clinique suma assistance doon fa noppalu ak di nooyal badd doomi jàmbur yeeg partisan yi ci mbedd yi ñuy wàcc di xeex parti Pastef sans Ousmane Sonko lu muy tekki ab laaj la bu campé ci xët mu njëkk direct news ci xët mu njëkk soleil national président national di Macky Sall moo fa nekk journal bi nañu démb ca ndajam conseil des ministres fa santé gouvernement bu Sénégal rawatina ñu yore wàllu kaaraange gi ñoo taxaw ci aar askan wi ak seeni bien mu di seen am am fu mu mën di doon nag ci réew mi xëyu ndaw yi ci réew mi l'observateur mi ngi xëy di ñu xibaar ne direction de l'emploi gi nekk ci ministère emploi te Pape Modou Fall jiite entrepreneuriat noonu la ñu ko tudde lañ fa doon waxtaane l'observateur nee nañu ñetti mbir la développement personnel esprit entrepreneuriat ak xamal leen nan la ñuy defee business plan yooyee mooy lañ ci doon waxtaane waxtaan wi Adji Sarr def ak waa l'observateur mi ngi ci xët mu njëkk journal bi Adji Raby Sarr ma ngi fay xam le ne sonn na ci li muy dund mënatul li mu bëgg mooy ñu léttu ko mbaa ñu firi ko La Sainte bienvenue au restaurant fast food pâtisserie La Sainte mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu lépp li nga xam ko daañu Saloum restaurant La i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 97 97 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer